dañu dajé le 28 en assemblée extraordinaire parce que dañu il faut qu'on se rencontre mm-hmm. ñu ni mais président la fa wax ni faut jënd ay vivres mm-hmm. daf ko wara yobbu jox ko ñi nga xamante seen loxo jotul seen gannaaw te mm-hmm. lolu buy dem ñun ñokoy def forcément parce que ñoko massi di def buñ ko deful mën réquisitionner armée mais dana soxé ndax amee armée amul auto yu am bobu capacité nous, c'est le moment ñun ñu xol lu ñu mhm. mettre à disposition sur ay outils de travail au service euh, de la nation Nous ko ci ministère des infrastructures bu que Youm mi nga xamanteni mo lu mhm. su ko euh, discuter après des modalités pratiques de la mise à disposition mais ñu ci dërëm alors que nous ne ci wut dërëm mhm. mais nous japp ni fi Uh-huh. amna façon façon gagner, faire... ci uh-huh. Uh-huh. parce que nag euh, euh law tiis woo Si xamni wi bo mun la dimbali war nga xam li la sunu borom defal ba nga war tirer profit mais li ñu nous jaaxal moy dañu gis altiné ben euh, appel d'offres pour les denrées alimentaires toftal un appel d'offre pour le transport xam nga loolu indi cacophonie man lema amos ko bari ne mettre ci disposition gis la nga def appel d'offre pour le transport moom fay jaaxle daf la bëgg ne wala lañ ci bëgg mhm. ñun liñu def nañ mais amuñu pouvoir de décision li ñu waroon a wax wax nañ ko wax nañ ko sunu ministre sunu jaan wàcc na bu fekke nak état dafa am xaalis bu bari pour meuna fay falilahi alhamd li motax ma wax ni commission gestion covid dafa laaj président dénk ko ñoo xamanteni ci dans la vie courante ce sont ses vrais opposants loolu moy tax bu ëllëgee bu scandale amé kenn du ko ko meuna imputer d'accord mais économiquement moom. Mhm. dëkk bi dana nekk à genoux. mais dundu doomu aadama moo ko war a jiitu. Mhm. man bëgguma sax ñuy privilégié xaalis ci waxtaan. Mhm. fi mu ne li ñu war a waxtaane mooy naka la ñuy def ba ñi nga xamante ni ñi ngi doon liggéey mënatuñoo liggéey ña ca àll ba. ca localité ba ñu nekk xëy na ku leen fa mën dimbali nekkulu fa nan lañu mën a fexe ba sénégalais yooyu. ëllëg ñun bu ñu leen xoolee dañu am kersa ndax gis nañu ñu traversé ay tragédie